biir kër mhm. waaw waaw alors tey li nga xamante ni moom laa ndil muy spot LED yi alors spot LED yi dañu gis ni que de plus en plus très tendance mhm. euh, même si ça fait plus de 40 ans ñu koy utiliser pour les appareils euh, électroniques yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser à la maison mhm. léegi dañ ko intégrer ci construction bi alors mën na nekk euh, loo xamante ni dañ koy utiliser ci plafond comme mën na nekk loo utiliser ci sol euh, doxantu nañ seeti benn spécialiste boo xamante ne moom moo ci wax intégralement moom ci loolu lay liggéey muy décorateur nañ dem seetaani élément bi daal di dellusiwaat. salaamaaleykum euh, mbokku TFM. maa ngi leen di nuyu c'est Mame Pierre décorateur alors tey je vais vous parler un peu de l'importance de la ci kër am na lumière yu bees yu génn mooy ay spot donc dafa am différentes utilités. te su leen gisee léegi dañ koy décorer ay plafond day jox benn euh, style daal lay jox parce que c'est dans le domaine contemporain contemporain mooy style actuel mooy décoration actuelle mooy li ngeen di gis ñu def ligne ligne droite yi ligne droite yi épurée euh, neutre. donc alors spots yi soo leen ko xoolee dañ koy utiliser ci euh, comme nu ma leen ko waxee faux plafond ak illuminer tamit ay pan ay tableau donc euh, day jox benn jëmm ci kër suñu xoolee suñu kër yi avant daanul am euh, lumière yu bëri wala ay euh, lamp yenn lamp yi rek la ñuy teg léegi dafa am aspect décoratif ba pare dafay yànjal am na différents spots am na spots yu weex am na spot jaune yoo xam ne d'habitude on message ci salon yeeg yooyu am na spot couleur yoo xam ne moom ngeen di gis ci boîte de nuit yi am na tam ay spot ay spot dirigeable mooy ñu def ci panneau yi ci tableau yi donc comme maintenant la décoration dañu dañu indi lu bees ci décoration c'est-à-dire dañuy décorer murs yi dañuy décorer euh, plafond yi donc euh, c'est bien sol yi tamit donc soo leen gisee ci yenn appartement sax di ngeen gis ay lumières yu nekk ci sol donc mooy lu leen di wax lumière dafa important ci kër donc euh, je pense que rôle boobu daal lay jouer dootul comme avant nga xam ne dañuy teg lampe rek parce que il fallait que ñu taal ko léegi dañ koy teg mu yànjal kër rafetal kër rafetal mur yoo xam ne léegi mur dañ leen di décorer yooyu mooy lu mu leen waxee sànq. kuy tabax daal ñëw foo nga nga def lumière bu bëri de de mise à part yaa jël kër gi di nga gis ne euh, même ci yenn euh, plan wu kër yi dañuy teg seetu seetu boobu tamit day gën a yaatal kër donc mun na permettre ñu am lumière naturelle mais daal lumière artificielle bi mooy lamp yi daal mu gën a rafet ci déco ko voilà ñu ngi gërëm bu baax euh, euh, maam Pierre moom ci li mu ñu expliqué jëm ci euh, lampe yi ak décoration au kër defaat naa sama deuxième solo bi ça c'est très intéressant comme quoi on peut décorer chez nous sax ba duñu namm hôtel voilà ko defar ba doo namm hôtel daf la koy jaral quoi surtout spot yi ni nga koy décorer ci salle nga dugg mm. taal ko mu rafet ci suuf ngay dox muy tàqal boppam am na façon yu bëri am na led yoo xamante ni couleur la am na yoo xamante ni nag couleur blanche rek la donc yow yaay tànn sa bu neex c'est super production euh, à part euh, quasiment led yi lañ koy defaree. Mhm. sal suuf même tableau tableau aussi gis ngeen tableau yi gis ngeen euh, photo yi nga xamante ni moom lañ ci inséré. Mhm. même les tableaux d'art. Mhm. led yi ci boppam ñoom ñoo koy éclairer. et c'est magnifique sa donne un design vraiment top. super on vous donne on vous donne l'adresse et le numéro de. de Pierre sur Facebook. super gentil donc boo leen nañ ko dugal ci Facebook yi comme ça ngeen mën ko contacter lépp luy wàllum décoration c'est lui le meilleur. merci ñu bëri ñu jàpp sa combat yow tey. yan la jàpp sa